élection ñu doon wax naan euh, le chef de l'opposition ñu naan euh, PDS lay doon ndax assemblée nationale yéen fa ëppale loolu c'était avant les dernières élections euh, ñu naan ki nekk deuxième ci présidentielle bi lay doon moom ba tey mi ngi koy réclamer nee na il revient pour prendre sa place yéen ce débat autour du chef de l'opposition ak les avantages yi nga xam ne war na ko accompagner xëy na bu fekkoon ne tegu na ci yoon euh, ñu bëri jàppoon nañ ne yéen yéen la yéen waroon doon parce que 2017 yéen jëloon deuxième ci élection yi euh, tey jii nii xëy na vous n'êtes plus concerné mais est-ce loolu dañ ko war a def loo xam ne lu fi nekk la pour ëllëg euh, wala bu tey weesoo sax ëllëg opposition opposition bi nga xam moo gën a positionné wu war a jël loolu ndax constitution bi may ne ko fa tey jii nii. yaakaar naa bu ñu wax waxi chef de l'opposition moom kenn du ci génnee le président Abdoulaye Wade xam ne moom. def nga ko ngir cëral. li nga xam ne ci parcours am daal passé mais même bi mu nekkee président de la république. Mhm. par rapport ak statut chef de l' opposition ba mais li may wax rek mooy ñun euh, PDS boo xoolee la le euh, euh, mooy bi le candidat Karim sa Wade génnee ci di déwénati Sénégalais mhm. li mu wax mooy que ne ñun fi mu toll nii ci kanam la ñuy xool avenir la ñuy xool et tey ñun lenn objectif lañ am benn bëgg-bëgg lañ am mooy nekk chef de l' état xam nga ku bëgg nekk chef de l' doo fi nekk di xëccoo ay chef de l'opposition même bu fekkee que ni tey. Mm-hmm. ci nor ci bu nekkee lu normal ki chef de l'opposition du ñu ko jox coalition parti lañ koy jox. et que boo xoolee parti mooy fi nga xam ni fa la ñuy. nasee ak di fa noccee muy péncum ndaw réew mi nga xam ne sénégalais yi ñoo fa ne buñ doon génnee chef de l'opposition foofu lañ koy génnee et foofu boo fa xoolee le PDS moo fa ëppale li nga xam ne moo nekk ay député ci légis depuis 2012 ba ñu daanoo ba tey mm-hmm. ba ci législature bi passé ñun ñoo fa ëpp ay député fi toll nii booy xool ci parlement bi ñun ñoo nekk li nga xam ne ñoo nekk la première force de l'opposition mais ñun ñoo ëpp ay Pastef qui Vous vous en avez combien Nous nous nous, nous sommes a 27 députés, il y a que deux qui ne sont pas du PDS. D'accord. Mamadou Lamine Diallo et et Cheikh Abdou Mbacké Bara mhm. Dolly. Seuls nous deux-là qui ne sont pas du PDS. Mais tey ñun li ñu am objectif mooy être le chef de l'État, le chef suprême des armées, mm -hmm. le président de la République. était en et en 2024 ci loolu lañ nar a nekk di liggéey. Mhm. moo tax may la nag bu fekkee nag yow li may wax rek am ñoo xam ne dañoo jëre yërëm. dañoo jar ñu ñu ñaanal leen. Mhm. des fois day baax sax ñu yóbbu leen ci psychologue mu xool leen ngir xool ba xam ànd nag seen état d'esprit. parce que am na yenn yoo xam ne ay caaxaan.